fi mu tolloon kii la sëriñ bi euh, bu xaaba bi teq tequm biir ba mu ëmb jële ci ëmb te dafa am jëkkër njaay. lool xanaa sama ginnaaw la. Euh, bërki démb la kay. ñaari ginnaaw kay li fi xew bari li fi xew ok foofu laa doon jëm ñaari xew si ginnaaw bari ah. déglu. man mosuma seq beneen góor bu sama jëkkër sama ngi nekk fi dafa tukki te man xaw ma beneen góor pour moom. te man musuma soo sama daal def fenn pour ne maa ngi ko trompé amul ma tegal kaamil mën naa ko waat metti ma torop torop torop torop bi ma ko xalaatee ba xalaat def calcul laa xam ne sëriñ boobu doon ma ñaanam moo àgg sama kaw ma jële ci ëmb bi ma ko kakkine ba xoolaat ko ci laa xam ne sëriñ boobu moom moo ma teg ëmb bi mu doon ma metti nag ma naqari lool lool lool sax man tamit euh, waxuma ko kenn waxuma ko meel bi ma dëkkal parce que rus naa ko jàkkaarloog moom naan ko dama ëmb te suma jëkkër ëmbalu ma te su ma ko nettalee ne ku affaire sëriñ sëriñ mi moo ma ëmbal man damaa gëm man damaa ñàkk bu ñuy gëm ma noppee moom di jooy guddi di jooy bëccëg mu naqari ma torop waxuma ko kenn muy naqar boo xam ne dama ko téye man dongu mu metti ma lool lool ndax tiit naa jaaxle naa xawma nu mu ko waxee parce que maa ngi nekk samay nawle sama kër xaw ma kenn ku ma ko wax mu ngi ma métti ba keroog bi ma amee doom la ko suma jëkkër yëpp ma expliqué naa ko nag wax ko ni taxul ñu gëm ma dañ dañoo jàpp ni man dama ëmb dem Dakar pour pour fa pour làqatu fa fekk na déedéet tiit ak jaaxle moo tax waxuma leen ko ak bañ sama famille yëpp euh, bañ ma moo tax ma nëbb loolu waaye ni sama jëkkër jur bi mu xamee si la téléphone ne ma may naan sa baat mu doon lu ma metti wàccee ma nag ñaari xale mu naqari ma lool lool lool lool sax parce que moom xam na ma bu baax a baax a baax a baax xam na ma bu baax sëy nañ maag moom lu toll onze ans musuñoo am benn problème musuma gisee ci benn tànku caaxaan mais naqal la ko yëg daf ma may sama baat mu doon lu ma metti nag lu naqari mais maa ngi koy muñ loo yàlla sunu boroom di ko xam ne yàlla moom lu dul yàlla neen la delluwuma sama kër jëkkër dama toog Dakar falaa woon wax parce que man tiit naa jaaxle naa ba pare feebar na xaw ma nu ma koy waxee ma toog Dakar ba am doom waaye boobu mu doon déggante mais waxuma ko woon dara waxuma ko woon lu boobu tiit naa jaaxle naa boole ko feebar xaw ma nu koy waxee mu tax ma toog foofu mère ma toogoon sama tante la. waa sama tante la moom laa neewoon foofu waa sama jëkkër ba ko yëgee dama ko ko wax man maa ko ko waxal sama bopp après waxuma dara tontuwuma waxuma dara dana dégg naa la rek la ma wax ba léegi tontuwaatuma ba bi ma ñibbisee fii woo sama nijaay ak sama papa ñoom ñoom ñu toog moo expliqué leen ñépp nu mu demee man leen kayit yi yëpp nu demee yëpp ma expliqué leen ko wax leen tamit li tax waxuma leen ko boobu ba léegi ma nabb leen ko waaw après sama nijaay tamit wax dëgg yàlla moom xam naa bu baax a baax xam na ni man doxuma dara caaxaan doxuma dara ñàkk fayda mais depuis boobu ba léegi ñu ngi sëy te kenn mësuma dégg benn coow euh, wax dëgg fa yàlla mu taxaw ma moom tamit nu ma war a taxawoo mais sama jëkkër moom si guddi googu la ma woo ne ma xamal ma ne ma may naa sa baat fase naa la loolu ma metti nag parce que xaar ma ko woon si moom foogoon naa ne su ma amee naqar wax ko dangay bokk ak man mais su guddi moo dama woon ne ma may naa sa baat